aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi ñi ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi santaat sunu borom subhanahu wa taala di julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddaliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim di ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko fi sunu borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram ñu am mbégte toogaat ak Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Xadir mi nga xam ne mooy ndawul sëñ bi ci lépp. mu toog ak commission bi nga xam ne ñoom la sëñ bi tànnal boppam def leen ñu di ay tànkam ak i bëtam ci li nga xam ne moo dal ci waa Touba tudde leen nag junnatun liman nasamahu jataay bii nekk sunu ñetteelu jataay ginnaaw bu ñu amee jataay ca Daarul Minan amaatub jataay ci kër Serigne Touba gi ñetteel bi jataay baa ngi nii Cheikh Mamadou Bassir fekke ko waaye jataay bi muy jataayub sant yàlla akub soññee ndax jataay bi waa Hizbut Tarqiyyah ñi ngi nii toog Serigne Youssou ànd ak ñoom waa commune bu tuubaa ñi ngi nii toog sëriñ Abdou Lahad Ka ànd ak ñoom waaye daayira Touba ca kanam ñi ngi nii toog sëriñ Mamor mi njiit li ànd ak sëriñ Abdou ak bokk yi ñu ko seqal yépp ak ñi nga xam ne ñi ngi leen di jàppale ni ko Cheikh Mahamadul Muntaxa waxe woon ne ñetti tànk la waaye bi ko ñeenteel mi ngi fii ci kër gi te mooy man kon ñu jàpp ne liggéey boobu nag jàmbaar da cee wàll siwaat incha allah dana feeñ mu di soxna Bali moom Cheikh Mahamadul Muntaxa ñu gën ko miin ci soxna Bali Muntaxa muy jëf ju rëy ci jëf joo xam ne Serigne Cheikh Diop dana ci ñëw waaye ngir bañ a guddal rek dañuy bàyyee kàddu gi Serigne Youssou Diop mi nga xam ne mooy coordonnateur liggéey bi mu yëkkati ci ay kàddu su noppee Serigne Abdoulahat Ka mi nga xam ne mooy vice président bi dana yëkkati ay kàddu su noppee Serigne Abdoulahat Abibou mi nga xam ne mooy wax ci turu Serigne Abibou muy président commission bi dana yëkkati ay kàddu su noppee Serigne Cheikh Diop wax ci turu Soxna Bali li mu ko yónni Cheikh Mamadou Basir Massé tontu ak soññee ak sant. kon ñun ñëpp ñu maa si déglu Serigne Youssou. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kàddu yi defe naa euh, xanaa leeral rek tolluwaay bi lay doon ak santaat suñu borom ci ndimbal li ndax soo amee pas-pas rek li am solo mooy sëñ Tuubaa su lay liggéeyloo soobul rek ndax ndimbal li nga xamante ne moom la suñu borom borom di warul ab jullit da ngay soobu ba noppi soo sooboo ndimbali soog a ñëw ndax tanaazamal mawtama bi ñu nekkee ca xare ba Badar Euh, di kenn ku ne mu jaral la sa bakken rot moo jiitu am ma dëwër rabbul anaam bi jundi am la ki nizaam kon loolu am solo la ndax ñu ngi sant bu baax nit ñi fu ne ñu ngi fay wootee bu jëkk sax xawoon naa jafe ci ñi ñuy jokkoo commission bi waaye fi ñu toll ni am na numéro ver defe naa dinañ leen ko jox yéen yëpp ngeen xam ko xam ne fu waay ne jarul nga naan diw laa ci xam naa ko woo wala boo jaaxlee kan laay woo numéro vert day doon loo xam ne ñu bëri mën nañ cee wooteendoo te du tee commission bi moom dina ko mën a xam enregistré ko su ko defee waa commission sociale waa commission technique waa commission administrative waa commission financière ñoom ñëpp jekk nañu pour mën a jëf ñu ngi ko ànd it ak ñi nga xamante ne mooy les services compétents de l'État ndax tey jii dafa am lu tax ñuy wax ne liggéey bu nosuwul day doon jafe-jafe day daal di bari fi ñu toll nag boobu léegi noo ngi liggéeyandoo gouverneur di liggéeyandoo ak préfet préfet sous préfet ak services yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo leen yilif kon nag ñoo ngi yëgal bokki taalibe yi ne euh, yëf yi toll na foo xamante ne kenn ku ci ne na nga xam ne yu saare na fil xayraat la euh, xëccoo amul njëriñ ci lu dul lu baax lu baax moom dangay fas yéene ah, jiitu kon loolu mooy li nga xam ne moo am fi ñu toll nii fu ne ay ndimbal mu ngi fay jóge di ñëw loolu nag ñi toll ci war koo leeral dinañ ko leeral ndax lépp. nos dañ ko ba nga xam ne amul fenn fu muy dugg fu dul ci compte yi nga xam ne mooy compte bancaire yi bu dee addiyee juñ joxe te compte bancaire yooyu dañ koo def ci turu kuréel bi nga xam ne ndigal li dong ko tax a judd ndigal li fa mu yem foofu la kuréel bi yem kon amul leneen luñ ci am pas-pas lu dul lii sëñ bi bëgg te yëkkati ñaari téeméeri million dugal ko ci compte bi nga xamante ne keroog ba mu joxee ndigal li lañ ubbi compte bi muy compte junnatun li man nadamoo compte euh, compte yi banque yu bëri am na ci te nañ ko dawal ci télé yi dawal ko fu ne ngeen xam ko te itam am na Wave am na Orange ni am na ci lu ne loolu kon sëñ Muntaxa moo ko ubbi nun ñii nag nga xam ne ñun la boole ànd nañu àndin wiit rafet na gisuñ ci lenn lu dul nañ gën a góorgóorlu te xam ne sëñ Tuubaa moom nu way nu way nu way wutal ci rek ci moom ci pas-pas na nga xam ne noonu la lay gàttandoo kon lii daal mooy li am solo na na na commission yi gën a def ay communication yu tax ñu xam fan lañ toll ñuy joxe ay kër ñu xam ne commission sociale mi ngi fi ñi nga xamante ne dañoo am yitte joo xam ne fañ nekk mënatuñ faa ne ñu xam ñan la ñu war a waxal ngir loolu mën a agsi ci commission bi loolu moom mooy liggéey bi ñiy def recensement ñu ngi ci terrain bi di def seen liggéey te liggéey bi incha allah feeg ak suba lépp lu jëm ci recensement bi dinañ ko mën a matale ba mën a xam kenn ku ci ne tolluwaay bi ak li mu laaj ci taxawu ñu mën koo def boobook léegi nag ñu ngi sant commission bi ñëpp euh, sëñ monsieur le maire ku ne xam ne ne moom doxinu taalibe lay dox doxul doxul weneen doxin moo tax saa su ne ngi ci terrain bi boo jëlee tamit Touba ca man defe naa da man ay malaaka sax laa leen jàppee waaye jàppee ma leen euh, leneen dul ay malaaka kon defe naa yëf yi war naa mën a dem li sëriñ bi bëgg nañ fexe ba mu am waaw kon lii daal mooy kàddu yi ma ci ubbee di santaat suñu kilifa gii nga xam ne mooy seen Cheikh Mamadou Bachir ndax sëñ Mountakha euh, kóolute gi mu def ci moom ñun ñi ànd ak moom xam nañ saa su ne kóolute googu day yokk day gën a jëm kanam jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullaahi mbokk yi noonu leen di tuuru nga xam ne mooy njiitu Touba Ca Kanam di fa nuyoo bi ba teg loxo Cheikh Mamadou Bachir di bokk jot loo ci kilifa gu tedd ci Cheikh Mamadou Mountakha kàddu yi nag kàddu yi cant rek lay doon ci teewaayu sëriñ Maam nga xam ne mooy jëriñu liggéey bi ak mboolem nekk te bokk Touba Ca Kanam waaye wax ci tuur gi nga xam ne dañ koo bokk muy junnatum liman nasma bi nga xam ne moom la sëriñ Cheikh Mamadou Mountakha tudde ko ñu ànd ko ak waa Hizbut ak waa commune bi ci ak jiitu sëriñ Abdou Lahad ak kon tey moom ci turu kuréel googu la ñuy wax lépp gannaaw boo xam ne nag Tuubaa ci kanam lañ fi teewal liñ ciy wax it sant yàlla sant sëriñ bi ci taw tawfeex ji mu ñu defal ñu mën a liggéey sëriñ Tuubaa waaye liggéey bi du ko Seex Mamadu Muntaxa yëkkatee am xelam nekk ci ne ñetti kuréel yi war nañ ko mën a taxaw mu booleen ko ñu ciy sant yàlla bu baax fas yéene cee itte ak suñ jom ak suñ pasteef ba li ci sëñ bëgg mu amee ku ñu ko kawe yàlla ko defal di sant it ci ñi nga xam ne ñoom la ñoom lañ ko àndal suñ yuus ak suñu laat ka ànd bi rafet na ko waxee taxawaay na lool waaye di sant Cheikh Mamadou Bissou mi nga xam ne itam lépp ci moom la jaar mooy jiwuñu sëriñ bi koy taxaw ci liggéey bi di ko ci taxawal yoo kàddoom yor léppam moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax ci taxawaayam mu itteem kuréel gi nag liggéeyal suñ Tuubaa moo ko tax a jug ci ndigalu Seex Muhammadul Muntaxaa ci lii nga xam ne ab xew-xew bu xew ci dëkk bi la suñ borom wàccee ko ci coobareem tax sëriñ bi ci ab taxawaayam ak matam ak yërëm taalib yi sëñ tax mu bëgg ñu taxaw ba lii ñu nekk ay jafe-jafe yépp ñu mën ci génn kon loolu mooy li tax kuréel gi taxaw loolu tam fas na ànd nañ ci nos nañ ko ñu ngi ciy dox di ci tàllaat ñépp loxo ci tal bi sëñ Tuubaa yëpp jàpp ci ba li sëñ bi bëgg li sëñ bëgg moom faaw day waaye ñu jàpp ci nag ngir ñu taw tawfeexi am ja la cay juddoo mu agsi ci ñoom waaye sëñ ak ñaanam nangu na te gi ñu ngi ci sant waaye nag di wax ci Tuubaa kanam bi di wax ne tuur sëñ bi ñu ko jiite ak noonu ñi nga xam ne yàlla dogal na mooy jëw yi ci liggéey bi yow kàddoom di ko waxal ak sëñ maam moom mi nga xam ne mooy président président waa Touba Ca Kanam bu ñu waxee mooy ki nga xam ne mooy coordonné liggéey bi ci seen tur ñoom ci lay wax ne Touba Kanam ñu ngi seddali seenu jaayante ak seenu pas-pas seen digg sëriñ Touba te di ko yeesal ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ko fi nekkal tey xam la ne lépp lu sëñ bi joxañ ñanga ca lu mu joxuñu nekkuñu ca doxuñ suñ dox yéen bopp ndax tey lii fi nekk lépp suñ suñu ndaxaaku suñu ma ko jiite ak ñii di wax ak alal lépp suñ tubaaku te suñ mën kon lu ci suñ mën taxaa joxe rek loola lañ cee lu ci bëgg moo ci suñu bëgg Touba Ca Kanam amul baat amul leneen ay taalibe yu dajale ngir pas-pas ngir liggéey sëñ tubaa li fi dañ koo laaj ngir ci tuur sëñ tubaa kon sëñ ko moo munu ko ba sañ koo téye wala ñu seet fu ñu koy jëmee wala fu ñu ko dul jëmee foofu sëñ bëgg mu jëm fa foofu lay jëm sëñ bi moo suñ alal moom suñuy bakkan kon ñun amuñu benn bëgg bu dul fi sëñ bi jëm ñu jëm fa kon Touba Ca Kanam xam ne ñi ngi engagé nañ ci ndigalu sëñ bi dafa siyéen ba jeex tàkk lu ci fekkee yi suñu bakkan desoon jaral nañu ko ndax suñ bakkan sëñ Touba ko muumunu ko kon nag lu ñu mën a dégg ci ay kàddu ak mën a jóge waxi boppam lay wax waaye waxu waxi Touba Ca Kanam sëñ gi te ci kanam si am moom Basiir ñu démb woo nañu su sooy wut ci waxtu yi fa lañ jullee tamit sëñ Yuusu mi fekk na jotaay ba sëñ Laat mi fekk na sëñ Maamun mi fekk na sëñ Abibu bu xamal sëñ Muntaxa ne ku ñun ay taalibe bi yu diglu ndigal loolu joxe rek ca loola lañ nekk te te te loola lañ fedd ca fës ca loola ca lañ fas nekk keneen kuy wax nag ay waxam la keneen kuy wax ak ngeen mën a dégg mu wax naan ci Tuubaa ci kanam yóor kàddu Tuubaa ci kanam kon kan mën mi maa ko yor te lii laa wax ci Yuusu ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sant sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul di ñaanal sëriñ Muntaxa xalif général des mourides yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal sama sëriñ sëriñ Sidi Mbàkke met waral ma toog fii di wax mu yàgg fi te wér ak njabootu sëriñ Tuuba ñoo ngi nii mbooleem kilifa yi fi teew kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di jiite ci nuyoo bi sëriñ Basiiru Mbàkke Abdu Xaadir bi nga xam ne moom la sëriñ bi teg ci suñ kanam te mate te mu jiite liggéey bi digital ñaw jawrin yi nga xam ne moom la ñu boole te Serigne Abibu Lahat Abibu Mbakke mii toog di wax léegi ba xolam xol yi tooy xolama tooy waaye tooyal na xol yëpp mu yàgg fi te wér ndax euh, li Serigne Abdoulaye waxoon rek feeñ na ci moom nit seen muy wéy doyu ci te ñetti fan yi nga xam ne Serigne bi dañoo boolee ñu ànd liggéey bi man de jëlee naa ci moom jàpp naa ci moom loo xam ne su lii amutoon du ma ko du ma ko xam kon ak cant yàlla la ak dolliku la ci ñetti fan yii ñu yàlla booleeg moom ci maandu ak pëstéef ak ak xam ak rigueur ndax nit koo xam ne boo waxee sëñ bi sëñ bi xam li nga wax mu defe naa ne yëkkati ne ay kaddu ci kanam sëñ bi bi mu noppee sëñ bi def ne ah waaw ndax dégg ndax ngeen ko sëy lam wax dugg na sëriñ bi te bi mu koy laata wax man am naa yëg-yëgi xol te xam naa na ña fa nekkoon maa ci gën na sax am naa yëg-yëgi xol ci loo xam ne maanaam yóbbu na ma fu sori kon sëñ Abdou yàlla yàlla guddal sa fan te wéral say ceeb ndax wax rafet na man ngaa defar te xam nga li ngay wax te boo waxee mu mu dugg xolab taalibi loolu nag lu am solo la ah, sëñ nag moom mi ñu ma li ma wax sëñ sëñ Mountakha moo yëkkati woon ab loxo mën na ñetti at ci ren yëkkati seen loxo maa ngi toog yuusu toog Atou Diagne yàlla na ko yàlla yërëm toog mu ne ma dama lay booleek ñaari nit mu ne boo ma doon jëmm de Cheikh Ibrahima mii mooy xel mi dafa mel ni maay jëmm ji Cheikh Ibrahima xel mi dama lay booleek moom bu jàppale la ci sama liggéey moo ma wax lii moo ma waawaat ba ma ñëw mu dugg ci ne tëju toog xel ñetti kaasi ataaya ma jox ma benn téye benn jox aatu jox yuusu jox ma ñuy naan mu ne ma man de dama leen a yërëm ci liggéey bi te bëgg leen a jàppale ah ñii nag dama laa bëgg a boole ñoom xam naa seen ilaaxa bu rafet ci seen diggante waaye dama laa bëgg a xamal ni ñi soldaar yi sëñ Tuubaa lañ te mën nañ laa jàppale ci sab liggéey ma bëgg xam naa ni ngeen demee ci déggoo waaye dama ci bëgg boole sama booleeg bopp loolu defe naa ne feeñ na tey kon ñun nag ci ndigal rek la ñuy wéy ndax man euh, sëriñ sëriñ Sidi Abdou Lahad jël boole ma ak ndaw yii nga xam ne mooy ay bokkam teg ma fii Mbàkke Bawol gi ku yëlli bind munumaa jox lu ma ko yendale Mbàkke ci am ci àdduna ndigal nag sa baay waxoon bul ko laaj waaye bul la ko joxee nang ci teg sa bakkan te ci loo ci loolu lay dox kenn du soxluwuma intérêt personnel soxlawuma ku ma tagg soxlawu bañuma ku ma ŋàññi ci ndigal ndax kenn du ma ŋàññi ci juddu kenn du ma ŋàññi ci jikko kenn du ma ŋàññi ci ak ak jubati ma ŋàññi rek ci liggéeyam sëñ Tuubaa bi lay daal liggéey bi nag dama jox sëñ Tuubaa sama jëm jox ko sama der jox ko sama alal jox ko sama temps kon lépp lu waay di wax ki ki ma ki moom nga koy wax waaye bañ bu waxuma ko bu fekkee ne dafa joxe boppam joxe alalam lépp lu nit di wax ka moom la koy wax bu dee ak jur sax bu ñaayee doo jàpp jur doo doo doo gaañ jur gi da nga dem ci borom jur gi ko sa jur gi yàqal na ma mbiram sëñ Tuubaa noonu rek laa ko jàpp ay taalibe daal la sëñ Abdu Lahat waxoon la ñuy doon ñun daal ay murit lañ fas yéenee doon te ay murit saadix lañ bëgg a doon dégluwuñ lu du ndigal ku yàlla bind ak lu yàlla bind loo xam ne nit danañu ci rëbb jàpp ñu lu dul ci liggéey sëñ Tuubaa bi amul ku ñu mere rek ci ñu mere ku ñu gërëm ci ñu gërëm ku ñu xarab ci ñu xarab donc loolu rek mooy li nga xam ne mooy suñu doxin kon nag li sëñ Abdoulaye waxoon boole yàlla koy def ànd nag ay koy def sëriñ bi dañoo ci kanam sëñ Mouhamadou Bassir mi boole ñu ak Youssou Diop boole ak sëriñ Abibou te ma sëriñ Mamor mii mu sëriñ Modou Bousso nekk ci bopp liggéey bi ak sëriñ Abdoul Ahad Abibou mii ñu ànd liggéey bi liggéey nag benn mbooloom sëñ bi waa kër sëñ bi liggéeyab sëriñ bi sëriñ bi lañ koy defal kon nag war naa yomb war naa mën a nekk benn war na war naa rafet Abdou Lahad nag du ñaawal dara ci àddina du bokk ci li lu ñaawal dara waaye nag saxaar guy dem la ci liggéeyab sëñ Tuubaa lu yàlla bind du ko freiné saxaar bu amut ab juyeer la lu dul ndigalal sëñ bi mooy gaar bi ci loolu lañ fas yéene dox liggéey bi nag bi ñu ko tàmbalee ak léegi mi ngi mi ngi dox comme ni ko Serigne Youssou waxee ndax ñoom commission yi ñu ngi ci liggéey bi di liggéey fii ñun ñu ngi ci terrain bi di dox di doxal terrain bi ndax di bërki démb ba tey ñu ngi ci barab yi li ëppal solo mooy li wër jumaa ji ak résidence ji loolu libéré nañ ko li ci des mooy këri kilifa yi nga xam ne sësoon na ci jumaa ji te am ndox te loolu ndox mi dem na da bi ci ëppoon solo nga xam ne démb ci lañ yendu fanaan ci mooy diggante kër sëñ Fallou ak sa kër sëñ Abdou Lahad yoon wi jóge marché Ocass jëm ci jumaa ji boobu yàlla dogal ne libéré nañ ko tey ji ñu nga jëm Guédé li tax nag nga xam ne nekkal Serigne Touba ak liggéey bi ñor la moo am solo mooy Serigne Bass mi defe naa ne dimanche altine ci suba ba bisab tey bi ab oto munta génn këram te mënoon na ñu njëkke ko waaye saa buñ na jëyi mu ne deet maanaam lii dafa metti tey démb ñun ñoo forcé de ne ko yow day li da ngaa sosoo ak say bokk yoo xam ne nii génn nañ te barab boobu mu ni su faa ñàkk dem ñetti fan yëpp ña nga fa regar bi sak ñu ànd ak Orange ak waa DCPE sax départ nañ ndakar indi leen maanaam Kaolack lañ nekkoon ca di waajal gàmmu ca gàmmu ga waaye indi nañ leen fii defe naa ne ku dem gerte tey da nga xool mboolem équipement ba ña nga fa ñuy seet solution boo xam ne def ne man de du man waaye nag kër sëñ Abdou Wahab gi ak kër sëñ Abdou Lahad gi laa bëgg nu gën a gaawe ñu ñu ñu ñu dindi ko defe naa ne fan démb barki démb ba tey jënn yitte la am lool la ndax bërki démb ci sëñ Muntaxa lañ yendu midi ba timis démb fa lañ yendu ba marax ba gee tey jii ka saalika ñu ngi ci li kon nag sëriñ bi lu dul ñaanal ko te xam ne yàlla dogal ne mën na mën na njiit mën na jawrin ndax jawrin mooy nit ko yaatu te bëgg lu baax te di ko wax fu mu toll mi ngi bëgg lu baax rek te di ko wax maanaam amul soxla ci yow a amul soxla ci du yow mi ngi am soxla rek ci nan lay def lan mooy sagab yoon wi lan lay sutura si yoon wi nan la ñuy def ba kenn du mer ci bokkam te loolu day sa sa kilifa gu baax gi di Serigne Sidi bi ma xëyee tey moom loolu la ma seereel ne ma seere naa ne daal jàmbaar la ci liggéeyam Sëñ Tuubaa eh, sun borom nag sëñ mbir mi nag sëriñ bee ko yoral boppam ndax moo tax mu sàkk ku mel ni moom mu ma mu nekkal fa ñëpp loolu moom tey yóbbante la boo xam ne sëriñ bee ko wax ma di la ko leeral. terrain bi nag ñi ngi ci mi ngi dox dem nañ te amoon na tuuti jafe-jafe ci bokki pof di ndax dañuy pompe fi muy dem Daaru Rahman di dem pof di biñ demee ñu ne ah pof di am na jafe-jafe ndax dootuñ pompe jëme foofu ndax ma ngay déborder di dem ca tool yi biñ demee sëriñ ma mi nga xam ne moo fa nekk tey njiital dëkk ba ànd ko ak i bokkam sëñ xaadim ak sëñ jañ ak mboolem jaboot ak poof di gi loolu it sëñ ba demee lenn rek la wax lépp luy defar liggéeyab sëñ bi boo la bu ma laajoon sama jëmm ji danaa ko joxe waxuma laa bu laajee leneen yée de liggéey bi daal la nga noonu defe naa sëñ Yuusu lim la wax bu ngeen demee nee leen sëñ Muntaxa wax leen sëñ Basiiru ne ko lépp loo xam ne day defar day waa poof gi ñu ngi fa ña nga ca loolu nag maanaam rafetlu ko lool donte ña nga ca coono bu méttee métti métti nag ak lor gu méttee métti waaye mu ne lu mën a doon rek Touba moom nañ fexe fexe ba benn gàllankoor bum am. du ma ko indi du ma nangu ku ko indi ci dëkk bi ndax loolu 1914 bi Serigne Touba yeba sancaan sante ñu ñu sañ ci Tindóoti sañ ci Ndindi sañ ci maanaam la yebal sëñ bi mu sanc fii mi 1914 ba nëgg ni ñu ngi fi toog di liggéeyal yàlla di defar diine di déglu Serigne tubaa lool la waxoon kon nag bu ñu defee loolu ànd ak administration bi góor noonu lañ ànd toon dafa dafa waaru ndax ñoom seen xel-xalaatu toon dem fa mais bi sëñ bi ne nañ fa dem biñ demee jox nañ wax nañ wax ju rafet jëf nañ jëf ju rafet loolu nag sëriñ bi foofu la liggéey bi toll commission yi ñu ngi fi li ko sëñ Youssou waxee bi sëñ bi indee li muy indi muy deux cent millions yi commune bi teg na ci soixante millions la woon sax waaye teg na ko def na ko soixante douze millions ak ay personnel boo xam ne indi nañ ko sari suñu benn jarbaat bu ñuy wax Lamine Sarr muy douanier indi na fi téeméeri bëri koy ceeb mi ngi fi sali wu Ba mi sama rakk la indi na fi cinq tonnes ceeb mi ngi fi taxaw mi ngi nii bagage yi sar Sarr wàcce nañ ko commune bi nag lim jënd mooy junniy bëri koy ceeb la ak junniy bëri koy junniy bidon diw yu vingt maanaam wàcc nañ ko defe naa jox nañ ko commission sociale ba wàcc nañ ko dix tonnes Lamine Sarr yi wàcc nañ ko mi ngi nii seen tonnes Saliou yi mi ngi nii xam naa danañ ko jox léegi commission sociale ñoom it ñu wàcc ko hmm. sëriñ bi daal fii la liggéey bi toll ak nag taaliba yu bare bare barkeelu yaa ngi ñëw Moustapha Cissé Lo de commerce moom yónnee na fi un million a ah, ci gasoil bi chambre de commerce it man maay vice président chambre de commerce bu Diourbel moom it yo chambre de commerce yónnee na million ci gasoil bi ak bokk yu baree baree bari ak barkeelu yi nga xam ne bu ñëwee ñu yebal leen ci commission sociale bi ñoo di ko def Barthélemy mm-hmm. euh, ki euh, Eiffage entreprise bi nga xam ni moo liggéeyoon autoroute Touba Thiès indi na fi logistique boo xam ne logistique bu kiimaane la ndax ne jël la ay gurubam ak pomp yu am doole jàppalu na lool ci liggéey bi ñu ngi ci barab yi ànd ak sapeur pompier ak waa DCP mm-hmm. ñu ngi fi Barthélemy Dias indi na ko kon nag liggéey bi wax dëgg yàlla ñëpp a ngi ciy jàpp mairi yu baree baree bari suñuy collecte ñu ngi jël seen alal ak seen moyen maanaam di ko yónnee ngir ñu jàpp ci kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu